man je pose la question comme quoi Moussa à qui profite le crime. eh oui très bonne question. tu poses cette question tu te diras que plus l'opposition est émiettée plus le camp du pouvoir applaudit. mooy car bi oublié aussi au euh, dans le cadre foofu du pouvoir aussi ñoom tamit. Euh, ñoom ils ont un problème qu'ils n'ont pas réglé. waaw kay mi ngi noonu ils ont un problème qu'ils n'ont pas réglé. non non ils ont créé de faux problèmes. ñoom itam merci. et le et le. waaw ce n'est pas un faux problème. c'est pas un faux problème Aliou. Ah, eh, c'est le benn <laughs> waa waa alliés yi bu ñu mënee jox carte blanche Macky waa APR mënuñu ko jox carte. waa APR nag ñoo ko ko xaj. waaw loolu mooy moo dul moo mooy problème bi. waaw mais mais bañu leen Bachir ñu ñu ñu def benn dernier tour de table. en attendant que par exemple le pouvoir résolve son problème mais il n'y aura pas d'unanimité dans le choix non dans le choix du pouvoir dina am ñuy dem ça c'est normal mais l'essentiel du bloc restera ça mhm. c'est gini boo xoolee opposition bi l'émiettement se poursuit te émiettement boobu noonu nag conséquence bi mooy boo deful ndànk il y aura deux candidats du pouvoir au deuxième te loolu nag moo gën a bon scénario eh boobu. c'est-à-dire que li muy wax nii c'est pas exclure. non parce que xoolal tey deux candidats de la majorité présidentielle yu nar a daje. Idrissa Seck je le considère comme la majorité. ah de la majorité. Idrissa Seck moi je le considère comme de la majorité. absolument tey jii boo deful ndànk Idrissa Seck ak le candidat de Dembélé il faut se retrouver au deuxième tour. Oh. bu boobaa Khalifa Sall. ak waa Pastef ak ñi doon dóorante doon xeex seen biir ils sont appelés à être les arbitres entre choisir entre la peste et le choléra kon musiba <laughs> alors euh,